wàllu jàng ak jàngale man nga ne ci département yi nga xam ne seen taux de déscolarisation ci gën a faible la loolu nag dañ koy wax ndax école publique yi ni mu fa war a demee demoo fi waaye nag barab la boo xam ne loolu toujours moom la wax sur le plan officiel waaye bu ñu xoolee wàllu jàng ak jàng mbirum daara ak enseignement arabe moom mooy li fi gën a développé moo fi gën a yaatu. bi ñu bi indee système enseignement franco arabe gis nañu loolu nekk na boosté na wala gën naa yaatal njàng mi fii ci euh, région Diourbel particulièrement fii ci ci Touba. maanaam euh, njàng mi comme daanaka ci évolution lañ nekk masalan ci informel lañ nekk di dem ci formel xam nga transformation boobu du gaawee noonu. waaye école yu bari ñu ngi formaliser surtout bi nga xamee ne école franco arabe publique am na nga xam ne léegi am nañ programme officiel bu ñu xam léegi école yu bari ñi ngi adopté programme boobu di demande autorisation di am ay autorisation waaye teewul ci côté bi mu am ay daara yoo xam ne amuñu autorisation te loolu it aussi boo xoolee ministère de l'éducation ñu ngi ciy liggéey ci ay ci wet ndax biñ créé inspection de daara am na léegi bunt yoo xam ne daara yi mën nañ fee jaar autorisation loonte loolu nag yaatoogul ndax xam nañ ne loi bi aju ci daara ba léegi loi boobu demagul assemblée wooteeguñ ko muy loi ndax am na ay ay ba am na ay jafe-jafe ci loi bi moo tax daara yi boo xoolee ci wàllu formali maanaam formalisation ci li ñu li ñu mën a jàppee lu formalisé wu maanaam am ay kayit ak nekk formel loolu moom ba tey xam nga ne yaatoogul trop te li ko waral mooy amaguñu loi boo xam ne am na consensus ñëpp ñëpp ba ba ba ñëpp ànd ci loolu mooy li nga xam ne moo tax ba léegi dañ koy jàppe formel mais ñi yor daara yi Touba ak ak fii ci département bi gis nañ effort yu ñuy def ndax fi la bari na daara yoo xam ne ñi ngi amaat ñi ngi ñi ngi former xale yi ñuy mokkal alxuraan en même temps ñu leen di préparer ñuy def ay entrée en sixième di di di ci réussir kon ñoom ci seen bopp ci seen biir ñi ngi moderniser seen daar mooy mooy ñi ngi koy développer ci anam goo xam ne mi ngi formaliser wu donte nag sur le plan officiel amagul amaguñ ay autorisation bi demee mën nañoo jàpp ne kuy xool Touba da nga gis évolution bu am solo bu am ndax euh, Cheikh Mamadou Mountakha projet bi nga xam ne bi mu toogee xalifa taxawal na ko ku ne xam na ne projet boobu ñu bëree bëri dañuy wax rek complexe Cheikh Ahmadoul Khadim mais projet bi gën naa yaatu complexe bi ab vision la sëñ bi bi mu toogee bi mu joxee digal dafa wax ne mu bari dégg nañ ko dafa bëgg Touba mais tudd ay dëkk yu bëree bëri ñu xam ci xam-xam Touba àgg foofu kon développement éducation ci Touba moom la sëñ bi moom la sëñ bi junj te bu ñu nee développement éducation Touba nag du benn établissement waaye établissement yi fi nekk yëpp moo tax liggéey nañ ci ànd ak ànd ak ñoo xam ne ci système bi lañ nekk xoolaat. programme boo xam dana adapté wu ak Touba programme boo xam dana am nga xam ne programme officiel bi bañ ko jël xool mu gën adapté wu ca loolu xam nañ ne fépp ci Sénégal foo dem am na pourcentage ci programme bi loo xam ne da nga ciy mën a dugal les réalités locales spécificité locale loolu ñuy yëngatu ci wàllu éducation xam nañ ko ba loolu ñu ngi ciy liggéey ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha ba loolu jàpp nañ ne dina gën a dana dana gën a maanaam formaliser bu baax a baax njàng mi ànd ci nag ak école yu mag yi fi nekk nga xam ne ñoom ñu ngi def ay effort école yu mel ne école établissement Al Azhar mel ne établissement euh, Serigne Cheikh Gaïndé Fatma école Darou Khoudoss yi yooyu école yu mag lañ di former seen i jàngalekat di di di di di fexe ba di di di lépp tege ci ay normes loolu moo tax ñu am yaakaar ne ci kanam Touba ci wàllu jàng dinañ ci gis évolution bu mag mën nañu sax mën nañoo jox exemple fii ñu tey ko tey a benn école la. boo xam ne école privée la mais ki ko initié muy sëñ Abdou Akim Mbacké dafa xalaat benn centre de formation pédagogique li war a centre de formation pédagogique mooy lii ngeen di junj mooy ñu bare bare ñu ngi jàngale te tey amuñu benn qualification dañuy am diplôme rek am bac dem ci école ñu jël leen ñuy jàngale saa ñu am formation te ku ne xam na ne buñ ne am njàng qualité munta am ca formation amul moo tax mu ubbi fi benn waaw moo tax mu ubbi fi benn centre de formation boo xam ne pédagogique pour ñi nga xam ne ay arabisants lañ bu dee français am na fi. Euh, waa am na fi mais arab amagut moo tax vraiment mu mu nekk ab initiative bu ama am solo boo xam ne école yi fi nekk tey yaakaar naa ne bu buñ demee ba ñëpp xam ko di fi indi seen i enseignants ñu leen di former danañ gis ab soppiku bu mag a mag ci njàng mi ci dëkk bi ndax nag formation ku ne xam ne pilier la ci liy tax qualité mën a am ci njàng mi. sababu bis bi tey mooy que tey bi ñu ñëwee ba nekk fi en tant que directeur des études donc waxtaan nañ ak ñi ñu war a waxtaanal ñu xool ne peut-être école bi war na ëpp. ni mu mel tey ñu ne léegi nañu woote jéem a waxtaan ak population bi xool nañ seetlu aussi que ne population bi intéressé wu na mais malheureusement dañuy am toujours problème pour mën a xool naka la ñuy def pour xale yi mën a ñëw alors bi ñu xalaatee waxtaan xool nañ ne aussi jëratul sax ñu koy tuddee fin d'année comme di daan am traditionnellement naan fin d'année fin d'année mais ñun nañ def mobilisation sociale daal di jël benn thème bi nga xam ne dañ koy tuddee njariñu école gox ak waa gox bi lan mooy seen rôle ci école bi ak école gox bi aussi lan mooy njariñam par rapport aussi ak population bi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk voilà bon effectif bi euh, vraiment ça tourne autour de 150 150 160 comme ça quoi ginaaw bi nga xamee nii dañ doon taxawal benn fin d'année ci école bu ñu tuddee école Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñu daje woon fii ci muy école primaire bi yàlla def euh, ñu doon jox ay neexal ñi nga xam ni ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo jël ñoo am note yi nga xam ni mooy note yu kawe yi ñu leen doon jox seeni neexal tey ji loolu moo taxoon ñu daje fi ginnaaw loolu it ñu defoon fi benn centre centre de formation pédagogique ndax dañoo gis ni loolu lu fi jafe la lu fi manqué la loo xam ne gisuñ ko ci dëkk bi ginnaaw bi nag ñu am ci ay xalaat biñ ñu amee xalaat nag ñu waxtaane képp koo xam ne sa xam-xam màcc na ci wet googu mu inspecteurs yi ñu def ay réunion waxtaan yàlla defit ñu def ci ay document def ci ay document yu solo waxtaan ci gis ni loolu lu mën a mën a nekk la ñu tënk ko biñ ko tënkee it yut ko sëñ sëñ bi nga xam ni kenn amul droit def dara ci dëkk bi rawatina lu jëm ci wet googu te waxtaanoo ceeg moom bi ñu waxtaanee moom it mu rafetlu ko lool wax dëgg yàlla jox ñu ci ndigal ñu taxawal ko yàlla def première promotion bi nga xam ne ñoo doon génn ñoo doon ñoom lañ doon jox seen i diplôme di wax ni jàng moom li am solo rek toujours mooy qualité bi qualité rek moom mooy du quantité waaye qualité qualité moom bu amul rek jàng day xaw a ndax biñu demee sëñ bi loolu lañ wax nee nañ jàng moom nit ki mënut a jàngale te formé wuñ fokk bala moo jàngale dañ koy formé moo tax na kon ñoo amoon xalaat boobu sox centre boobu wax dëgg yàlla tàmbali na yàlla defal na ci ndam ba nga xam ne première promotion bi génn bi ñoom lañ doon jox seen diplôme ñoom lañ doon seen jox seen neexal. école franco islamique koy tudde ndax école la boo xam ne lépp loo xam ne programme état bi moom lay jàngale ñu bu officiel bi ba pare mu nekk école boo xam ne bu ñu reconnaître la. kon franco islamique mën naa wax ni kon loolu la école bi tudd kon nag école bi école bu ñu reconnaître la mu jàngale programme état bi programme officiel bi moom lañ fiy jàngale première yi ñi nga xam ni ñoo fi njëkk génne daaw lañ fi njëkki génne yàlla defoon ni ñu ne ñu amoon 100 pour cent nga xam ne ñu fi gënoon ñëpp am nañ CM2 am certificat yàlla defal ñu ñu am 100 pour cent ren jii kon nag mooy suñu deuxième année ren jii it wax dëgg yàlla résultats yi génnagut waaye ñi ngi yaakaar xëy na bu génnee dinañ ci am lu demee noonu waaw biñ bi bi loolu xewee it xam naa collège bi incha allah année prochaine yi danañ ko ubbi moom it dana tàmbali euh, bi bi bi nekkee ci jéego yooyu nag ñu ñu xalaat ni am njàng dafa war a am qualité ndax bu amul qualité rek lu baree bari dana dana sooxe moo tax nag ñu daal di sos benn centre centre boo xam ne centre de formation pédagogique lañ ko lañ ko def ñi nga xam dañoo am bago arab ak ñi nga xam ne am nañ néew bi te am même amuñu diplôme bi ñu jël leen di leen fi former nga xam ne ñoom bi bu ñu fi génnee danañ danañ mën doxal njàng moom mu nekk.